dans xam nga affaire Aïda Diom bi dafa révéler dafa révéler des pratiques bancaires douteuses parce que Aïda Diom on a vérifié tous ses comptes au Sénégal fekkuñu fa un franc. oui un franc dans les comptes compte normal. mais bi ñu poussé investigation yi on a vu que génne na à deux reprises quatre milliards de francs CFA muy huit milliards jaarale ko par la CBAO versé ko dans deux emprunts obligataires de la de la Côte d'Ivoire te jaaru ci ay compte am ci dara. waaw loolu c'est un peu compliqué. foofu moom travail d'orfèvre la. huit milliards quatre milliards de francs et puis ñu découvrir souvent l'histoire des coffres forts mais là ubbi ay coffres forts dafa détenir ay bijoux bijoux de trois milliards et quelques et ay bons caisse yoo xam ne. calcul yëpp ça faisait ay huit mille et quelques donc on a vu là vraiment des des pratiques très douteuses léegi nag man dama bëggoon a je voudrais en sa en en en euh, maanaam du bëggoon xam ndax moom dong la wala ñoom ñëpp pratique bi jaar na ci. parce que gis nañ ko ci Aliou man bëggoon xam nag est-ce que euh, amul ñeneen à part moom ñu ko def donc ci la saisiré le l'actuel patron de la police hein Yàgg parmi collègues, mes collègues vérifier moi, en lui donnant la liste là, mais que vérifier moi dans les quatre plus grandes banques, CBAO, SGBS à l'époque, euh, B6, etc. Les plus ndax pratique bi ñu découvrir dans le cas de Diom est-ce que amul ñeneen ñu ko def ci biir. waaw ah, d'accord. c'était pour vérifier parce que. Euh, euh, lu mën nekk la. parce que moom en tant que dame elle a réussi à faire ça pourquoi pas d'autres hein. léegi nag bi ko kilifa gi yëgee le président la ñu on l'a informé de parce que aussi banque yi dañoo xaw a doon tiit. Mhm. mais nag après lui m'a appelé ba pare. et donc bon ah, ambiance bu gën a quand même. Mhm. vraiment mhm. kay avec beaucoup de respect ah. je mais monsieur procureur mais dégg naa yaa ngi yaa ngi yëngal yaa ngi yaa ngi yëngal banques yi quoi yaa ngi créé ay ay ay des troubles dans les ko non ça ne va pas comme ça. et je lui ai expliqué mu ne ah bon mais fi mu jaaxalee mooy moom moo indi problème ak moom parce que dafa ne ma soo paree tu ma donnes les résultats mooy comme ça ak ñii je les tenir sur le plan politique. attends kii xanaa il oublie qu'il parle à un donc bi ma demee ba def sama résultat d'enquête léegi j'ai ouvert des enquêtes individuelles parce que dama parce que dama envoyé une liste bi résultats yi ñëwee j'ai ouvert des des enquêtes individuelles pour chaque chacun pour chacune de ces personnalités. donc bu ñu ko yëgee naqari na ko quoi parce que li mu bëggoon amu ko et donc du coup voilà du jour au lendemain. lu ci waroon am am ci. voilà lu <laughs> ci waroon am ci.